alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man waalaah bokk yu tedd yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax di leen dokkeel yàlla subhaana taala bu defal tawfiq te defal leen ko mu mel ni ba ñu xëyee ba léegi ñu ngi nekkoon ci di déglu xale yi nga xam ne ñoo doon barkeelu mooy xale yi nga xam ne ñoo doon ubbil alxufaaz yi nga xam ne ñoo mokkal alquranul karim bi kaamili ñooñu nag am na ñoo xam ne ñoo leen doon gunge di leen ubbil jataay bi mu nekk lu am solo loo xam ne ñi nga xam ne xëyoon nañu jataay bi ala kulli xaal seen ay xol sedd na macha allahu taala ginnaaw bu ñu ndokkeele bu baax Cheikh Khadim saar ci liggéey bu solo bi waaye itam ndokkeel sëñ daaraam suñu xarit bi Cheikh Alioune mi nga xam ne ala kulli xaal ci moom li fi jaare dañuy wax ne bu robinet bi xellee ndox bu neex gërëmal d'abord forage ba nga xam ne euh, fala jóge jógee ala kulli xaal kon dañuy njëkk gërëm njëkk a ndokkeel njëkk a euh, euh, sargal suñu xarit Cheikh Alioune bu baax a baax a baax ci loolu ñaan subhana taala mu defal ko tawfiq defal ko barke bi liggéey mi incha allahu taala alakul xaal di tam di sargal ak gërëm waa koñ bi macha allahu taala di leen dokkee ñoom itam nag ci lii am tey muy ñu tantal leen tantum alxuraanu karim seen ci seenub quartier loolu mbokk yi alakul xaal koñ tey ruq bi tey gañee nañ bépp ruq budul moom tey bi ñu tantal ko tant boo xam ne bañ xëyee ba léegi lafay fay jib mooy wax yàlla subhaanahu wa kon bile koñ bile ruq bile quartier ala kulli xaal tey maanaam supérieur na gañee na mbooleem quartier boo xam ne amul lii tey ala kulli xaalin kon nag boo defee kon loolu ala kulli xaal ñu ciy lokel mbooleem koo xamee ni yaa ngi ci euh, bile quartier bile koñ incha allahu taala bu ko defee nag kon gannaaw bu ñu euh, dégloo gone yi doon barkeelu depuis ci ba léegi yàlla dogal bi ñu noddee tisbaar ñu eggoon ca biir kër doon julli tisbaar càlleen yeeg ndaween yeeg mbusóobey ñoom am lu ñu doon def ala kulli xaal ñoom sëñ daam ñoom ñu doon julli tisbaar ak yu demee noonu léegi nag ginnaaw mu jógee ci julli ga ak ñoom sëñ daam doon def léegi nag ñu ñëw ci parti bu am solo bu mat a bàyyi xel muy parti al muhaadara muy li ñu tuddee conférence muy waxtaanu diine wi koy def nag euh, daanaka gani ani taarif <laughs> mën nañ waxe noonu mooy jëmu joo xam ne daanaka di représenté euh, képp koo xam ne saa borom yàlla dogal na ngay topp jataay mel ni jataay diine ca télévision ba ca rajo bala la ca internet ba la xam nga jëmm ji nga xam ne mooy def tey almuhaadara bi waxtaan incha allahu taala muy Cheikh Fadil Ndiaye Cheikh Ndindi jàpp naa ni sax tur boo ko waxee rek ñëpp dañu xam ni kooku moom jëmmal joo xam ne ci jataay yu mel nii xam nañ ko ci rawatina jataay boo xam ne jataay alxuraanu karim la kon nag. Euh, moom duñ ko jox tem daanaka moom temam mooy rek daara ji ak lu soxul daara ji moom mooy temam ala kulli hal mawduuhu maarufun inda jamii la ah taabiina la daara képp koo xam na nga ko topp moom ci tay mel nii daanaka du ñaa ko waxtaanal ci nangam ak nangam lii waxtaan ma weesuwul weesuwul alquranul karim weesuwul daara ak lu ñu a jàppe daara ak waa daara loolu mooy nekk mawduuhu al maaruf ala kulli haal ba fekk kon Cheikh Fadil mi ngi nii teew na ko massa woo ndax xaala ku xaal fu sor la fu sor la jóge nag lépp rek ngir ñëw jariñ ay mbokki jullitam ay mbokki taalibeem ba fekkoon nag ñuy sàkk ci mbooloo mi ñu may ko nopp bu baax a baax a baax ngir mu mën a euh, li nga xam ne mooy aadaam te mooy jariñ mbokk yi man ko def incha allahu taala kon Cheikh Fadil ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar la kon rek dañu bàyyi ak say mbokki taalibe say mbokki jullit incha allahu taala kon fa damac ko sakalo xeer barakallahu fiikum bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammadin wa wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jotaayu alquran bii di ñaan sunu borom tabaraka wa taala bépp xarafu alquran mu fi jàng yàlla nañu ko suñu borom defal ay milliards milliards milliards yiw ca ñu jariñu ci àdduna ca njariñ la dëgg nekk àllaaxira loolu yomb na yàlla yàlla nañu ko daal di jiital ci ziyaar yi ak ndokkeel yi jëwriñu daara ji sëriñ Xaadim Saa waaye jëwriñam ca laa bëggoon a jëm muy Serigne Aliou Sène def na lu am solo ca mooy taxawu nit ba mu war a mën a ubbi daara nga taxaw ko mu am daara ba mu ko taxawoo mu am daara ba nga koy jëlee jëlewoo ci sa loxo te rek ba muy ñëw ca kër ga moo moom sëñ xaarim ñoo am ñëw fa sàkku si jataay bii bis bu xam ne ci ñun bis bu xat la ndax dafa fekkoon ñu joxe woon suñu kàddu ci lu jiitu bi leen di jox seen kàddu ñoom te bàyyi woon xel ne benn gis la am boo xam ni mm, suñu biir bii ñu nekk mm, waajuñ ko woon waaye bi ma wooyee fàttali ma te may en tant que asgor ala xoroo maa la jot a la boo xasee joxe sa kàddu rek ba mu dos bopp lu dul ngàntul leer looloo tax ñu ñëw sëriñ Xaadim ñoo ngi leen dokkeel waaye suñu ànd yi ñoo ngi leen dokkeel bu baax lii lu ama am solo la yi duñ gën di wax mbokk yi may jàppale ci liggéey bi ne yi may jàppale yëpp bu ngeen ma tàggoon la woon benn bis ubbi ji daara sama xol day set bu ma tàggoon la woon benn bis ubbi ji daara sama xol day set bépp sëriñ daara boo xam ne yàlla dogal na ñu waxtaan maak moom ba ko ba juboo ci wàllu ñu war a ànd liggéey ci wàll yëpp maanaam da ngay ñëw ngir jàppale ko ci liggéey bi di jàngale ci daara bi dama naan la bis ni ki tey nga xam ne tàmbali da ngaa fas yéene am daara programme am daara bis ni ki tey bu sa mag joxee sa nijaay wala sa xarit wala sa dëkkandoo njëkk boo amee lim bu mën a ubbi daara ñu wuti barab nga ubbi ci daara mu wuti barab dana jàngale képp ku mu a doon noonu laay waxee yow kon si ñaar ñun lii nga liggéey bu am am solo la mu nga noo xawee nooy naan jum buñ jafal mu jafal ay jumi jum ñu jafal séddu rëy li ma xam leeram nga day fooro loolu mooy li am solo dëgg-dëgg mooy fexeel ba bu bu mbir mi yem ci waaye fu mën a àgg rek na fa àgg lu gën a mën saaroo mooy li nga xam ne mooñ ci ñun loolu mooñ ci kon ñoom la ci bokkal baax ni oustaz waxee nag xam naa ne eh, kàddu bu gàtt lay doon par rapport ak conférence waaye kàddu soññee lay rek jëme ko ci wayjur yi ak dëkkandoo yi seen digganteeg daara yi mbokki wayjur yi ku ci ñun xam na ku ci ñun xam na boo yoree sa doom muy benn doom muy benn doom toll ci juróom benn at juróom-ñaari at coono bi nekk ci téye xale boobu coono bi nekk ci téye xale boobu benn xale la sa coono bu rëy mi ngi rek ci aar ko sàmm ko ga jàngale bi dama koo jëndale waaye téye xale bi ba dem fenn téye xale bi ba kàkkaar yi wax du ko jël téye xale bi ba sareet yi du ko bëgg téye xale bi ba moto yi duñ dal ci kawam sécuriser xale bi képp comme ci doon bu dee benn xale nga yor da nga problème yi nga jànkoonte da nga yëg problème kon ku mbooloo mu toll nii allah fas yéene koo sàmm. sëñ Abdou Lahad Touré dañ koy waxoon aw mooy dana woon ndegem sa doomi boppa lay xañ jàmm ase ki yor mbooloo te koo sàmm dina yow sa benn doom ma lay xañ doom jooju nag yow wajur wi na xam ne jàngal ko téere bi yàlla bi yow la war dama ay àq yoo xam ne wajur doo ko yoreel doom àq yu bari la waaye man si ngeen ñun ñett naa war a waxoon bu njëkk bi mooy na nga ko tànnal wajur na nga ko tànnal waajur ndey dafa war a tànnal doomam baay ba mu ko présenté ne ko kii sa baay du am lu mu koy xebet baay dafa war a tànnal doomam yaay àq la ñu ko amee avant mu juddu ba bu màggee xam ne kii ñu ma di sama yaay kat amul lu may xebet ci moom ñaareel mooy bu tuddee ko tur bu baax ñetteel bi mooy na ko jàngal alxuraan ñetti àq yii nit ku nekk yoreel nga ko sa doom te bu ngeen ko boo ko defut yomal xiyaam da ngeen ko layoo da ngeen ñu bari ñoo xam ne duñ taxaw seenu njaboot xale yu bari léegi seen wajur yi ñu ngi leen yóbbu ci école yi jàng école dara ñëw ci wuñ dara ngi ci waaye julit bu jàngul diineem julit bu xamul téereem yàlla bi lettre bu ko yàlla adressé xamu ci dara loolu bokk yi danger ci ab ab réew danger ci aw askan te xale bu mu dara

waqifuuhum koo mas'uluun sama baay bee na taxaw sama yaay bee na taxaw ndax ñoom taxawul woon ma jàng alxuraan dara jëru ko mbokk yi léegi bi nga xamee ne yow la war nag te defoo ko mënoo koo def ak loo ko demaa def nga jël nga jël ko jébbal sëriñ xaadim jël xale bi jébbal ko sëriñ xaadim sëriñ xaadim amatul waxtu du benn waxtu daara internat mu ko dafa nekk amoo amul suba amul ngoon waxtu wu nekk yaa ngi ci xale yi waxtu yooyu yaa ngi jàngate ñoom amul waxtu nga jël ko jébbal ko mu boole sàmm nga nga doon sàmm xale bi aar ko protéger ko ba danger yi daal si moom yëngu ci mu di ko jàngal téere bi yëngu sa doom ñu koy defal ca la ngay joxe ca loola nga nang ko lool. damay faral di wax léeg-léeg boo ji naw. lañ joxe ci misaal xale boo xale booy fayal internat trente mille francs bi yëpp trente mille yi jëlal sa trente mille nga divisé ko par trente bis bu set mille francs la kenn ci yéen moo mën a jël mille francs jox ci doomam ne ko nekk ci añ ci reer ci génn ci li ñuy fayee courant génn ci li ñuy fay seen daara ji mi daan ngay nga génne ko ci maanaam génn ci génn ci génn ci kan moo ko mën kan moo mën a añ nekk añ ci ci mille francs mille francs ku ci mën a am 1000 francs ku a am añ bu baax fi mu moo tax saa boo ko évalué da nga xam ne du du ko naw te 1000 yooyu léegi dana ko dundalal yow ci dundalal dina daa war a ay taxawaay yoo am ci moom yoo xam ne ko war bàyyi xel la ci mooy maanaam nga i'tiraaf nga am reconnaissance ci li ngay defal nga xam ne daf laa wuutu ci liggéey bu rëy kii sëñ bi mu nekkoon ci yow ab sang la kilifa la. danaa gàddul loo xam ne bu boo ko taxawee wul yomal xiyaam mën nga cee dem sawar danaa danaa gàddul loo xam ne yomal xiyaam boo ko taxawee wul mën nga cee dem sawar wala yomal xiyaam mooy àq gi nga amee sa doom sëñ daara ba la ko taxawee ndax ca la yem mu gaara mu la ciy garanti aljanna mu la ciy garanti aljanna sëñ daara bi mooy koo xam ne li muy defal ci xale bi bu ko ci defee yomal xiyaam moom sa aljanna day leer. yonent bi sax moo ne min muslimin yuallimu waladahu alqur'ana illa tulliya yawma alqiyamati bi taajin fi ljanna sallallahu alayhi amul benn xale bu jàng alquran waajur yi jullit bi jàngal seen doom alquran loolu na bu yowal xiyaamee dañ leen tegal mbaxanay wurus bépp wurus mbaxanay góor fan na leen ko tegal ci àjjana yoo xam ne boo xoon ne ñu tegal leen ko yowal naa ñu tegal la ko ñu tegal ko nga jéggi saraat affaire bi du wala ñu peese ji fi affaire bu baax waaye di teel jënd na lool maanaam kon àjjana gi daa leer kan moo lay garanti loolu ku lay taxawal ci loolu ngir bi sëriñ ci loolu ngir am kon waxuma dundal gi jàngal gi ak li ca war lépp waaye sa doom ëllëg si biir sat ba muy am sëriñ xaarima magum jëpp mu ne léegi akub sikki moom alxuraan xamu ci dara dara dara dàkkinu góor yi dàkkinu góor yi maanaam lettre bu too man bu toll yàlla bind la ab lettre xamoo ca lettre ba dara la jéem a koo jàng dañu fa wax ne fii ñu toog ku ci demoon sa kër fekk fa lettre buñ bind ci allemand wala ci chinois ñu adressé ko sa tur bala ngaa am jàmm da xam dëkk bi kan moo fi dégg chinois pour jàngal sama lettre léegi yàlla bind la lettre bu toll ne alxuraan nag xamoo ci dara la dàkk kon loolu dina ma bàyyi xel kon da ngaa war a reconnaître liggéey bu rëy seen Xaali Saar liggéey sa ji da ko war a liggéey jàpp naw ko xam ne dafa war a am xam ne xale yi lekkuñu ab jox lekkuñu suuf xale yi nit ñi lekk lañu lekk kon ñaar li diggee moom nga def ko te def ko ci waxtu bi nga war a def. def ko def ko ci waxtu bi mu war a def da ngaa a jox addi ji bu weer bi dee jëlal addi joxe ji dañ fa def waajur yu bëree bëri dañoo bokk daara yi seen bokk daara yanu seen yitte mën nañoo fay daara gi daa fekk seen xel dal dañuy ñëw ne la bëggoon maa indi fay gën waaye dañ maa indi facture courant boo xam ne seere ma def ko tam man de bëggoon maa indi fay ji waaye si daa xaw a wér bi fan yii si buri daa xaw a léegi kii nag yor doomam yore xale muy siburu nga ne ko siburu waa kër gi siburoo xale bi daanaka duñ jot ci fay gi bu courant bi xale bi daanaka duñ jot ci fay bu ceeb saako ceeb bi jeexee xale bi daanaka ñoom daal ñoom dañuy nit ba lépp mat ñu doog leen di moo tax ma ne dañ leen a bokk ci bokk daal xam nga boo bokkee dara yanu dara sa bopp li nga yar bu naree wadd boo nee nii la nag bokk daal ñu ngi def wadd moo tax dañoo bokk daara yi ñu ëpp ci nit ñi du ñëpp de mag ñu jàmbaare ñoo xam ne dañu jàpp ñoom la war mooy bu weeru dee seen doom lañu a a fayal waaye ñu baree bare nag ñoom doom ji la ñuy mujjee loolu loolu nekkul lu jaar nekkul lu jaar xale bi ngay jàngaloo yow su yow waajur bi nga yëg ne li nga koy def loo ñor xale bi ngay jàngaloo nga yëg ne li nga def loo ñor na la tege nan la ko yëgee mooy di ko nemmiku ji del nemmiku ji xale bi. ca bala ngaa ñëw ci daara ji boo mënee ko téléphone nga jot ko téléphone laaj ko lan nga bëgg la ko ay choix dañoo ay bëgg-bëgg damaa bëgg ñëw lan ngeen bëgg ku leen ko indaaleel xale yi wax liñ bëgg muy daal leen topp xale yi ci lépp luñ war a am luy luy jagal seen ay jumtukaay. xale yi dañoo war a bu ñu waree am ay téere wallaahi si daara yi dañuy denc loolu xam ne ci dara am na ñoo xam ne bu ñu xasee dugal xale bi ba dugalaale ab téere jeex na dañoo mel ni daal téere yi moom du xaar moom foo toll yow yaa jënd téere seen daara yi dañuy denc ay téere xam ne ci dara teew wajuru yoo la war foo toll di toppatoo xale bi ànd sa téere ba mbaa dëggul mbaa manqué wul naa ko plastifié wajur bari bari noo plastifié ji ah li daa cher li ko bu plastifié moom da ko war a plastifié bind ci turam ñangal ko benn yoon boo ko deful dee toppatoo téere bi sëñ bi wallaay xale léeg xale daw jàng xale léeg mu daw jàng ba nit ba du ma wuñ ko fitnaa luñ ko xam nga lu da am jom day as gor su am jom amul ab téere bu ñëwee ni muur armateur bu heure bu la waay bu leen te moor moo ko jugal fi heure bu da nga yàq suñu téere ñu di ko jàng jàng yooyu la mu du supporté mu daal di abandonné environnement am na ñoo xam ne jom moo leen sóor ci ñàkk jumtukaay yi ñàkk waroon a am téere di xëy di àbbu téere seen morom ñu leen di jàng wala ñu leen tegal ay condition bu lemoo nangam nangam bu lemoo dama jox juróomi dërëm bu fàtti ko ñaar fukki may fay a nga xam ne tey ngay condition yoo xam ne amoo ko fi ne jooju léeg-léeg moo del xaay te loolu li ko war a mooy waajur wu ñàkk a toppatoo xale léegi dañu mooy xale bi fi mu toll dalaa war a ñor xale bi fu mu toll dalaa war a ñor xale bi am njàngat dalaa war ah yow yow bi ngay bi ngay bërsee tabaski fi nga toll nag fii ah yow ndax njàng maa ngi dox waaw kay xale bi xam ne yaa ngi koy continuer waaye xale boo xam ne da nga bër ba weddi bàyyam du ko laaj fu mu toll yaayam waxi na bu dee tënk sax ama ko au lieu ñu naan ci ba ak moom doomam moom ay jotaay demal fooy yi lañ demal demal fooy yi demal fooy yi xale bi toog ci biir mag dugal fii demal fooy yi. te dalaa am lu waroon a ñor xale bi yittee la lool nga war ko toppatoo topp ko ay yéreem topp ko ay bagaasam lépp lu war a yittewoo xale bi lu dundal am njàngam lu ko yombal yow waajuru yow la war yow waajuru yow la na ci xale bi yéegi ne li ko def loo ñor la ay hadiya yoo koy jox di ko jox ne ko jëmal joxal seen xaalis jël montar bu rafet xale bi xool montar bi xoy xoy montar bee rafetaay bi nga ko demal joxal ma ko seen sëriñ daara bi xale bi dana xam ne bàyyi na ñu def lu ñor la bàyyi ñu ngi def lu ñor na ko jël sa diine di des gestionnaire bu rafet ne ko demal jox ko daara bi yor sa téléphone bu rafet demal joxal na ko ki leen di jàngal xale bi day xam ne bàyyi lii muy def lu ñor na ko ñor na ko bul xeeb dara walaay bul xeeb ñaar jox xale bi dafa joxaale na ko sëriñ daara bul xeeb ñaari kilo suukar yooyu jox na ko daara dafay am lu muy def ci moom mooy day yëg ne li ngay def lu ñor na la waaye bu dee yow jàmbat ngay def xare bi bu sëñ bi soññee ne ko neen sa sa baay bu fay gi sëñ seen sëñ xaalis moom fu mu bu sa boo amee ni lay juróom-ñaari pousaak ñaari mètre percal nga ne joxal ba si waaye sëñ daara de sëñ daara fulla yooyu kenn wut wut sa daara ñett ñetti bakkan yooyu ñetti bakkan bu ko dugal rek lànkal léeg ñu digg leen ginaar bi weex boo xam ne ba ba daara gi ba léegi musu ci bu kilo teeb indi ci daara gi bu la indi leen ginaar rek xamal ne yàlla dafa dëgg daara gi ba yàqal la musu am bis moo tey may añal xale yi daal di jël jëlu ginaar bu weex tànn sëñ bi jox jox la ne ne kon ngaa xam ne sëñ bi léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg am soxna su ne di jaay yëre bi yëre bi moom ëpp naa sore yëre bi moom daa màggat kii jàngal xale am soxna bu war a xool lu rafet si sa borom kër yëre bi daa màggat nañ ko jox ko jàngal xale yi foofu la nit nit ñi toll te mbokk yi loolu wóorul war nekk wóorul war a nekk de walaay bu ñu organisé woo problème du am sëñ xale yi nekk macha allah. bu doonoon tey wër ñu ni xale yi kenn ku nekk jël na ci ñoom ne fukki fan ñu ne man maay toggal xale yi ak añ ak yi dañ ko organisé bopp mooy lan mooy da nga naan tey la lan ngay ne tey la fukki ñaata fan bisat nga ne léegi man daal le 10 bu doon séddoo tey dama naan le 10 ci le 10 maay toggal xale yi kii le 10 février mooy toggal xale yi kenn le mars mooy toggal xale yi kenn yow at mi at mi benn yoon nga ci togg bu baax yow xale bu le 10 yooyu jeexee bu bu njëlee mu des yi fu ñu toll dund bu baax mën nañ am te du diis at mi benn yoon nga ci togg añ benn yoon añ at mi benn yoon nga ci a rëy fexe ba xale yi seen biir fees ak ñam ñu toog di jàng alxuraan ba muy rees arab fu mu jàng daal si fukki yoon amul fenn amul fenn amul fenn dëggante leen ci loolu mbokk yi wajur yi bàyyi leen ci xel ci liñ leen wax sëñ xaadim bu korite ñëwee korite korite bu wut am problème korite wallaay wut am problème korite nday daara yi moom li ñu war a féetewoo mooy ginaar ginaar xam nga korite ginaar lañ ci baaxoo xale yi bu kenn ku nekk indi loon si xaalis ginaar ñaata ginaar si xaalis ñaar ginaar ginaar si xaalis day maye ginaar day maye ginaar ci loolu war am bu doon si jotee waaye ku mën a am xar moo ko yeewa de wallahi xale bi yeewu ne ko xale bi si suñ daara daa koy jox mënul jëndum xar naa waxtaan ak sëñ bi ñu ñu bokk ñu ñaari cotisé wut suñ cent mille franc jënd ko xar mu baax ñun ñaar buñ pour seen sotti nit ñi boole si gàllin seen ñu nekk ñu wëddi donge yi ñu daal di ko sa jënd xar bu baax looloo war a am suñ ci daara ay waay seen yi dégg naa rëy dégg naa seen lu lu muy gi jot tombé ak ñu war a fay weer moom suñ daara yi am ñu problème ndax tërës gi gi koo xam ne ah tërës gi jéem a jot maanaam ñëpp a sëgg weer

loolu mooy jaadu mooy yëg-yëg bi war am diggante ki lay jàngalal sa doom walaay yi bu ñu leen bàyyi woon bu ñu leen bàyyi ci mbedd bi koñ bu dëkk naa am problème ñëpp xam ne ko dara xale yi jàngut bu nekkee ñaar ak ñett rek koñ bi am problème am na ci dara waxtu jàng saa bu jotee yi pétti de koñ bi ñii duñ ci bokk kon la ka lay téyeel noonu sa doom loolu ci bàyyi kon waajur yi na ngeen gën a góorgóorlu ci loolu lu ngeen man ci ay ndol leen gën di ko def lu ngeen manti xemmeem loo xale yi téere bi ngeen di ko def ndax loolu taxawaayu waj taxawaayu waj yi taxawaayu waj yi waaye man de mënumaa añ ah suñu ànd bi seede laaj naa añ bi ñaata lay doon mën a ah añ bi def environ cent mille franc daal boo ko amee man dañoo naa gis soxna diw soxna boole seet seet dañuy bett suñu ànd bi seet sax dañuy ah bi xam naa bu subaa moom jël soxna yi dem danañ indi añ tey loolu dariñ indi ay dariñ dariñ indi ay bu baax kon taxawaay ba ca war nga def ko mbokki mbokki kon loolu laa biir mbokki waa kon bi rek moo waa lu moo wax biir ndax lu baax moom lu baax rek kuy bëgg lu baax da koy bëgg rek doom bu ñëw doom war nga leen a taxaw la mooy dongo yi li leen di waajal lépp bu noppee dañ ko joxal askan bi gratuitement bu dongo yi li leen di waajal lépp bu noppee dañ ko joxal askan bi gratuitement walaay oustaz yi ñu ne waaye ñi ñi ut taxaw ñi ut a génn fii dox am ku ma laaj oustaz dama lay laaj mel masalam bii rek ma ne ko loolu damaa yàqam ñëmewu ko ñëmewu ko lu muy def daan bisu taxaw bu doon ko laaj damay nopp ci moom gratuitement est ce que mas ngeen dégg ngeen noppkat bi taxaw ne man tey ba maa nopp nañu maa fay dégg nga ko fii élément bi mas ngeen gis élément bi taxaw ne bala maa gis ngeen maa fay toujours mas ngeen gis naan ma ah, sama doom bi da ngeen naan non non moom ah, góor la bu dee góor nangam la bu dee jigéen nangam mas ngeen ko dee tey bàyyi yitteem yëpp ñëw tuddal doom bi gratuitement lépp gratuitement waaye boo xam ne nag fañ koy formé bu noppee da lay jox lu lay amal njëriñ te la ko jox buñ koy formé war ngaa participer war ngaa participer buñ koy formé war ngaa participer bu baax a a kon ñu ci góorgóorlu kon ci dénkaanu booy yi moom ci jeexal sama mbokk dongo yi laay dénk ab dénkaan bu gàtt mbokk dongo yi kenn ma dégg man ci yéen laa bokk mais c'est ça ne woon naa seen biir bañ xam ne ci yéen laa bokk li ma dégg li ñu jiitu mooy li ngeen xam ne bu ngeen bokkoonul am xëy yéen a gënu xëy bu leen ñee kenn bu leen geesu kenn ku looy wuti. dara ju waay wuti yéen bu ñu xëyee si yéen a xëy xëy di wax ak yàlla gont wax ak yàlla maanaam ngay wax a yàlla ñën ngay wax ak yàlla waay waay loo wuti fa kenn bu ëpp yàlla mooy lépp koo xam ne foo toll yaa ngi ci yàlla yaa ngi wax ak yàlla foo toll yow bul faaleti kenn bul ñee kenn bul xool kenn bu ngeen bëggoon am xëy yéen a bëgg xëy na ngeen seen ngeen daara métteetul bu leen kenn ne daara daa métti ba ngeen gëm ko daara méttiwul léegi daara méttiwul yéen yéen coonee daara xamu ne ci dara yéen du ngeen soq wal du yettiwu leen ñax fëru leen gattax taxaniwu leen boobiwu leen rootiwu leen lu leen def bu leen ko bëgg a métti li méttiwul seen yëpp bu leen ci gën a bëgg a métti bala war a maanaam xale boo génnee ci daara ji xale yi gis ñuy ye la yendoo gën a métti xale yi jàng la ñuy yendoo gën a métti toog jàng wax ñu dara furti furti ju dul jeex yéeg ci ay ñiiri cëppeelu fumba bu dul jeex sonn ñàkk tax lépp waaye loolu tax daal jàng loolu loolu ne toog ci daara jàng kon dañu ci góorgóorlu lax saa yu baax a baax xale yi wàcc xale yi mokkal na ngeen leen na ngeen leen naw te bu leen leen yéem bu leen leen yéem day doon wax ñun li nga suñu diggante sëriñ Tuubaa dëgg-dëgg mooy yéem bu bari bi ki nga naw da nga ko jéem a roy waaye ki nga yéem da ngay jàpp ne li mu naan mënoo ko bu jeex bu ab baara seen diggante yéen nag lu man da jàpp man ngeen dégg ngeen baax li ñuy wax li may jeexal nag mooy seen biir yéen xale yi xale yi dégg ngeen lu xale yi dong daara yi soxna yi séddale soxna yi ñu bàyyi yi tuuti ma wax xale ñaar ñaar doo nga nekk seen biir ñaar am na koo xam ne saa bu suñ xaadim demee ba quatre heures du matin mu jug bëgg si njël nelaw yu neex lool am na koo xam ne bu xaadim demee ci moom danaan bëri wut si mbaar ma ndax lan jàmbaare min jàmbaare kookaa koy soññi day dagg nelaw yi ni koo waaye bu waaxee bu wut si mbaar mi am na koo xam ne bu xaadim demee ci moom mu bëgg a ñaar ñu doon nga am de dégg ngeen wax am na jàmbaar yoo xam ne ku sëñ Aliou Sène demee ba nelaw yi neex dañ ko dañ koy jaral dagg nelaw yi ndax jàmbaare gaa yooyu jàmbaare gaa yooyu am ñoo xam ne nag seenu jàmbaare seenu ñàkk a day naa ba boo ñëwee mbaar ma seen mbir da ngay bëgg a ñoom donc bu desee daara nga tas am na ñoo xam ne borom ñoom donc ñu tas daara fexe leen bokk ci njëkk ñee jàmbaar yooyu fan nga leen a xamee mooy bu suñ xaar yi toog sées bi tale jot na tale jot da ngay gis jàmbaar yi nekk fële sori waaye ñi naan ñii ndeysaan di gudd gudd di ñëw di àndu si ay jàmbaar lañ wóolu nañ seen bopp am na jàmbaar yi sa si fii rek pour ñu mën a jàllal jàllal arrière la ñuy liggéeyee ay waay bokk nañ ci ñi ñu ñu mujj ngeen dee bett seen seen daara bett ko am mbégte mooy lan seen daara ba la jàngaloo sumul ndekee ngeen ñetti am bis nañ nga ñëw taari sumul si mu nar laa jox dikki bi nga ne ko tey raw laa jàng allah ko muy xindi xool la danañ xool ba xool bu sedd guy sëñ daal daa am lu ñu alimenté loo xam ne pour ab sëñ daal mënu ko xam tàngooru mbaar mi ak xataayu mbaar mi ñàkk bi bu leen seen di leen yërëm fekk ñoom xale bu juróomi si ci ba mokkal ko aw dëggu benn gat mbaar ma day sedd ci ñoom nit kay ni climatiseur kilim ba dàq ci kilim moo koy dàqal da mbaar maa koy dàqal di leen saral xol yi siim am solo nga xam yow saa boo dee jiy dikk suñ daara bi sa war laa téye xam ne yow da ngay mokkal jàmbaar waaye boo xam ne bu dee téye jiy xam ne moom boo ko téyelee da nga tardeel gars yi da nga tardeel gars yi lu leen di dikk te lu kon fexe leen bokk ci jàmbaar yi te bañ a bañ a bokk ci jàmbaar yi baax baax. yi jeexal mooy ñaan yàlla defal leen tawfeex defal ñu ñëpp yéen ñëpp ngeen bokk téere yàlla bi ngeen bokk ci yàllay sàmm téere bi innaa nahnu nazzalna dikra wa innaa lahu lahaafizuun am na ay adawaat suduuri muslimiin ci la bokk bal huwa aayaatun bayyinaatun fii suduuri llaziina uutul ilm wa maa yajhadu bi aayaatinaa illaa zaalimuun fexe leen seen dënn yii bokk ci dënn yii yàlla lay sàmm téere bi yàlla ko yàlla yombal ñu ngi leen jégalu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah rabbil alamin allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit maa ngi leen di nuyu nuyu bu sell bu tedd di leen nuyu itam nag ci turu Seex Moodu Muntaxa nga am nga am mbégte bu baax nag ci moo ko waxee rek démb ca ministre ba ndax liggéeyu mel nii liggéeyu alxuraan ko gën màgg donc yàlla dogal nga di ko teewe rek war nga cee sant ko taw tey xelal ndax leen sant gi ma di ko toog ràmbalee ci sëriñ Modou Sarr mi bala maa àgg ci borom daara bi waaye den sant yéen borom suñ daara yi yéen ñi nga xam ne ñoo ngeen jàppale ko ba mu taxaw lii di sant sëriñ seen bu baax kon ñu ngi leen di bu baax ci taxaw ngeen ko àndal moom taxaw ko ba mu bi bis mel nii waaye ma di ko sant moom seen xaaju ba mu tam bu taxawaay bu rafet bii mu taxaw def ko ci digal waajuram def ko ci digal ay sëriñam waaye def ko ci ak bëggam ak pësteefam ak yitteem ba daara ji egsi bii ba xale yi àgg fi ñu àgg ba wane njàng ko rafet mu set mu wér nii ñu wane te neex kon daal ñu ngi leen di bu baax nag ndax alxuraan lu ci waaye def yàlla suñu mu ko defal waaye lu seral xolub Sëriñ Tuuba la kon nag seral xolub Seex Ahmadu Muntaxa ñu ko fi nekkal tey waaye sawul suñu xol bi yëpp kon dañu di ñaanal rek ah lii yokk loolu yàlla def ci barke xale yi yàlla gën leen taxaw gën leen a àggale waaye lu rëy lu mag waaye lépp ak seen àdduna ak sa àllaaxira fa waaye yàlla defal leen ko yéen ak yéen yéen yi taxaw rek ñu tukki kon ngeen xam ne daal kàddu gi ñëpp ñuy tudd loolu day bari ndax ay jëli taal yàgg na waaye mu xam ne rek suñu xol sedd na seet xolof seet na mu taxaa sedd na ñu ngi leen ñaan yàlla fay leen gën di fay te nangu seenu liggéey yokk leen jàmm yokk leen xeewal te yàlla def ci barke ba bu ci jàng bu ci daara ji ak ci daara yi yëpp yàlla def ci barke ba jàng barkeel ba li nga xam ne moom la yàlla bëggoon ba tax mu wàcc ko Seydina Mouhamed Seydina Mouhamed di ko tasaare ak li ko wutu di ko tasaar ba egsi ñun yàlla dogal muy dem muy gën a dem di gën a tasaaroo xoolal alxuraan bu ci jotutoon li mu defar li mu defaree adduna fekkoon ak amutoon kon nan nan la adduna bi mel kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom itam moo ma ci waaj moo la ci waaj ci tasaare ko ba mu egsi si ñun bu rëy a tey jii nag damay jàng alxuraan ba biig sama xel jëm ci alxuraan maanaam ni mu màggee ak njëriñ li mu nekk fekkoon jamono ak fi mu indi jamono li mu indi ci ay defar luy defar nit waxuma leen gëm gi ak yooyu waaye ci wàllu jikko rek ak defaru li ci indi kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci alxuraan di sant la Serigne Touba ci alxuraan di sant Cheikh Mountakha leen sant yéen kon nag jërë leen jëf saako xeet di mbooloo mi yëpp sama am waxoon rek barakatul quraan yi faqat zanna nee na barkeb al quraan amin mbàkke amin Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëpp